abonnez-vous, ciao le Sénégal Salam alaikum, bokini, ñuy tibir, ci Sénégal dal sa bu ñu leen di Tuke reumi. xibaar yi tukkee ci biir réew mi ku ne xam ne solo la ci di Diaz actuel maire bu Ndakaaru moom Barthélemy Diaz nak procès bi nga xam ne moom la amal tribunal bu gir, ngir tili ko ci li xewoon ci ciowal Ndiaga Diouf renvoyé ci mars wi ñu passé dal di koy andiwaatoon nag tey eh, ba ci àllarba ji yemook fukki fan ak juróom ñett ci weeru me gi mu mel ni yëf yee daal di nañu koy eh, dàqaat waxuñu nag benn yoon ana moo tax ñu daal di koy dàqaat waaye moom Barthélémy Dias mu jéew ñu ko atte tey ca boobule atte eh, mbooloo mu takko takko moo fa daje woon ñëw soutenir si ile di mairie bu ndakaaru di Barthélemy Diaz waaye itam ay kàddu yoo xam ne jot nañu ko fa yëkkati ngir dëgtal ko sénégalais yi du lenn lu dul li lee di coowal Ndiaga Diouf ak procès bi dàq dàqaat gi lu leen soof la bu ñu sañoon ñu dal di ko yàtte ngir ñu mën a xam fan la dëgg gi féete ñeneen ñi jàpp ne président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw ndax bu ñu gisee ni muy doxalee ak ni muy dàqee procès bi du lenn lu dul bëgg a doole ki di Barthélémy Diaz dañu ko bëgg xagn maire mairie wi bi ba nopi dal di ko euh, mu Diaz ki jamono Ousmane Sonko fassiyene yamal conférence de presse Madame daje ak taskati xibaar yi ngir fassiyene yéene askan wi wala ñu la ne ci seen xol ñu dal di yebbi mu di hôtel de ville ci jilay jamono mbokk yi ñuy teewlu doon am mbégte bu baaxa baax ngir tribunal bu sous suba ba léegi ci àtteb Diaz abonné vous activez les Nicolas de notification ngir ngeen mën a am vidéo à temps réel jàngeen jëf Abonnez-vous, ciao le Sénégal